accompagné yoo xam ni euh, mën na jëriñ euh, père de famille yi euh, laata ñuy recevoir gan gu njëkk gi di professeur Daouda Ndiaye tey nag defe naa coronavirus bi lu mu dégg rek ñoo ko yàq puisqu'on a beaucoup de questions yoo xam ni bu ñu ko boolee ak question internautes yi doon peut-être lu ñu mën a servir pour yéen ñi nga xam ni yéen a àndandoog ñun en direct ci télévision Futur Média donc bu leen fàttee hashtag bi QG 2020 daan Covid loolee mooy hashtag bi ci quartier général Facebook bu télévision Futur Média on a tellement de comptes yoo xam ne ci réseaux sociaux yi euh, di mën euh, di àndandoo ak ñun Sophie itam dañu koo ber daanaka ñëpp la ber fi nekk nii ñun juróom dañoo beru Coro euh, Mbaar Ndiaye di studio 7 et puis am na beneen gan goo xam ni itam dañu koo ber moom kott nekk ca fa ne ñu boole ko fa ak caméra robot d'habitude buy ñëw ci quartier général bi day ëndaale ay tabala waaye ren nag malheureusement euh, tabala yi du ñu mën jolli waaye daañu dugg xuus bu baax euh, ci ëttub Cheikh na Cheikh Sadbu xayartu euh, kookee mooy sat bu Sadbu Samb bu nag di suñu xarit di suñu rakk di suñu soppee sénégalais yi bëgg ko lool at bu jot mu ñuy bégal ci quartier général bi à travers groupe am waaye ren nag ñëw na ndax mënul ñàkk bégal sénégalais yi moo ni woon Alwali Maane Ndiaye yow la ñuy moom it dañu koy bégee te tey di i can cant euh, ci euh, barkeb euh, Cheikh na Cheikh Chat bu xayartu donc moom it daañu ko fekk ci beneen studio bi nga xam ne ni foofee lañu ko ber lépp rek ngir respecter mesure yi nga xam ne ni jóge na kër docteur balaa itam ñuy dem ak oustaz assan ci yenn cay question yoo xam ne ni ñoo ngi koy recevoir ci allo docteur parce que bu njëkkaan weeru koor ñu bëri daan nañu dem ci conférence yi di dem dinaa file ci jàkk yi donc daan nañu am benn problème pour yenn questions yi mais actuellement j'ai reçu par exemple ku ne à partir de quel âge la góor mën a jiite juma wala jiite julli donc seen question boo xamante ne léegi daa ko recevoir euh, yenn saa yi ñu considérer yenn question yi comme terre à terre mais ça a beaucoup d'importance euh, on en parle ak Oustaz Assane dans quelques minutes euh, ci plaque boo xam ne ni jóge na ci téléspectateur en attendant ñu lamb benn téléspectateur bu ko defee ñu mën ko baaxee ndimbalam ci numéro téléphone yi 88 628 vingt 22

86 wala 88 628 04 05 je rappelle que yi ñu leen di may euh, bu ngeen ko euh, amee euh, du jar ngeen di déplacé wu mën ngeen wéy di toog seen i kër dinañu jokkoo ak waa Rapidos xam nga ñoom lépp lu jëm ci wàllu daanaka livraison dañ ciy dox am nañu ay camion am na nañu ay woto am ay mobilette am yu baax yoo xamante ni day dem ak rapidité donc gis ngeen ci écran bi Rapidos ak taxawaayam yaa ngi cay toftal nag ci taxawaayu Rapidos ci wàllu social dinaa kanamee en tendant ñu euh, joxe ñaar fukki junni euh, teg ci panier euh, ndogu bu am solo boo xamee ni mën na jëriñ père de famille ci période de crise bi ñu nekk allo. kooku. allo oui madame. Amsatou. yow la Amsatou fooy wootee. maa ngi wootee Patte d'Oie. Patte d'Oie fan ci Patte nga dëkkee Amsatou. HLM Patte d'Oie. nga dëkkee nu ngeen def crise bi Amsatou. voilà on on bi c'est pas évident. am nu ngeen def ak xale yi ak njaboot gi. ah di coow rek leen raxas ak ñoom seen. wax nga dëgga depuis démb ñu pour jot la et ils insistent maman donne c'est vrai tu veux tu des tu veux des ndimbal. tu veux ils sont à tu veux que je te donne un ndimbal. ah mais très bien je te donne un ndimbal de cent mille et un panier de dugub et de mboq pour tes enfants pour te pour vraiment te aider ci à cette période de confinement. ah ah ça vraiment. voilà c'est pour vous. vraiment. yow yaa ko moom ñu ngi lay gërëm. waaw comme vous insistez depuis depuis hier ils ah, embrasse, très fort. ne raccrochez pas comme ça ci ginnaaw ñu jël sa numéro téléphone nga mën a jot ci euh, ñaar fukki junni bi ak pañe bi euh, du jar ngay déplacé wu toogal sa kër euh, dinañu la ko livrer grâce ak Rapidos allo. merci beaucoup. voilà merci d'avoir appelé ñu ngi lay gërëm bu baax jëlal leen ma ko ci ginnaaw ñoom awaak euh, service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média ñoom it ren dañuy maye lépp rek ci jàppal ma jàpp nga xamee ni euh, ñëpp ci taxaw il faut faire du social euh, Serigne fàllu Mbacké transitaire jot naa yóbbanteem yegsi na ñu ngi koo gërëm bu baax je rappelle que at bu jot dama leen di proposé en plus de quartier général tous pour un dem di tabax mais mënatul ne ak rassemblement yi nga xamee ni dañu koo tere waaye am na ma ay ndimbal yoo xamee bu ma ko jotee naa ci mën a tof toftal ay saaku ceeb ak diwlin euh, pour dimbalee ko ñenn ci famille yi nga xam ne ñu ngi woote euh, ci quartier général bi ñu làmbaat beneen euh, téléspectateur allo allo allo allo. ay ca très rapidement da beneen téléspectateur ñëw bala ñuy jàll ci leneen sat bu sàmba ngi xaar bëgg nañu mu am lu mu ñu mosal tuuti ci jotaay bi tey lépp rek ci ëttub Cheikh na Cheikh sat bu xayartu sangub ajot sooda Bousso allo allo. allo waaw ah, Pape Cheikh. kooku. yow la. Alaaji Gise Alaaji. Alaaji Cissé fan ngay wootee. Gise Gise. ah Gise ah, ah, Mabo yaa ngi woote fan. Medina. Medina fan ci Medina mbaa génnoo. ndax génnoo. yaa ngi toog sañoo génn de alkaati de alkaati Medina la nu gën a bëri fi mu toll tembe nu ngeen def ak crise bi mbaa yéen a ngi euh, protégé euh, di sàmm njaboot gi xale yi ak mag ñi waaw gis nga moo fois yow lan nga doon liggéey yow avant crise bi lan ngay def yow cordonnier ah cordonnier est-ce que yaa ngi liggéey yi actuellement yaa ngi xëy di liggéey ah waaye taxawal dégguma la bu baax xanaa ma bañ la téye balaa sa crédit di jeex euh, ma dimbalee la da bëgg. yaa ngi taqale d'accord euh, yàlla na taq ma dimbalee la ma dimbalee la euh, cent mille francs. waaw. dina baax cent mille dina baax. waaw waaw. waaw ah, na de mbaa di nga joxe dépense jàppale maire bi. très bien donc jox naa la cent mille na nga fexe ba jàppale ci maire bi bul ko kott lekk lépp dem jox ko xale bu jigéen bi <laughs> xam naa leen da ngeen gaaw ci Orange Money waaw <laughs> <laughs> dama leen xale yi xale Medina yi ku ci am ñaar fukk da ngay orange ne lii jox ko sa yaay nga bokk kook moom ñaar fukk yaa ngi ma teg euh, ne quitte pa ñu jël la ci ginnaaw et nga toog sa kër euh, dinañu la ko yónnee nga mën a jot euh, ci sa xaalis nu mu gënee gaaw ayca nanu ma joxaat beneen téléspectateur ndax ndimbal yi lépp la ñu bëgg a joxe tous les jours donc woote leen à tout moment même bu ngeen ñu jotul en direct di ngeen mën am ci lii ñuy séddale guddi gu jot ci télévision Futur Média dina gën a yokk nag fileeg bis yi dem Euh, dinañ ci yokkaat yeneen ak yeneen yi ndimbal yoo xamee ni euh, ñoo ngi koy xaar euh, ci baaxkat yi nga xamee ni ñoo nekk fii ci Sénégal donc yow Saas fi na préparé wu balaa ñu koy fekk fa nu ko ber ñu tontu benn question bu jógee ci téléspectateurs yi kat yi ki demande ci ban âge la ñu mën a la góor mënee jiite. waaw Cheikh jërëjëf xam nga l'islam moom diina la ja nga xamante ni lépp ay texte la yoo xamante dañ ko bind noir sur blanc comme ni koy waxee mhm. soit mu bàyyeekoo si alquranul karim bi ñu miin wala si waxu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. wala si ijma maanaam li nga xamante ne fuqaha borom xam yi érudit euh, waxtaan nañ ba tënk ne lii mën na nekk si charia al islamia wala qiyaas qiyaas boo ko déggee maanaam ñu ne par exemple lii amoon na si jamono nangam léegi xew-xew bi nan lañ koy attee ñu ne kon nañu dem ressource wu si foofu wala inspiré wu si foofu ngir ñëw mën a indi atte si li nga xam moom moo si xew-xew jamono yi nga xamante ni que lii dafa ndaw daf ci am ay famille yu ndaw par exemple ki laajte lii mhm. moom la yaayam mhm. doomam bu jigéen ak mhm. doomam bu góor bu am 15 ans et koor gi tàmbalee ba tey heureusement jàngal na ko alxuraan et tout ça doom bi am 15 ans moo koy jiite mais daf ci xaw a am ay doute waaw d'abord sorti euh, imam moom d'abord il faut day nekk musulman charte yi laa lay indi si ñaari minute rek si ñaari seconde mhm. ba pare mu nekk ka nga xamante ni ku xam diine la ba pare doon góor mën a jiite ay góor man xale du jiite waaw maa ngi ñëw ba pare doon góor mën a jiite ay góor ba pare laab Mamadou Ndiaye mi yenn saa yi mu ne ma sawaay ñu julli bokk da ko déet bàyyi ma jóg ba pare nga taxaw sama ginnaaw. yaa ngi dégg charte yi mooy mu nekk jullit d'abord. nekk ka nga xamante ni kuy xam attey lislaam la. nekk ka nga xamante ni ku laab la. nekk ka nga xamante ni ku ànd ak xelam la ba pare xàmmee naka la ñuy réparer julli gi nga xamante ni dafa jamaj wala borom. Ah. julli gi dafa juum. donc léegi nag boo ñëwee ci ki nga xamante ni moom moo di euh, euh, jiite xale. Ah. boo demee si ngir gi nga xamante moom moo di nguri imam Malik. Hmm. nga xam ne Sénégal si lañ gën a tënk Afrique de ak yenn euh, dëkk yi da wax ne bu fekkente ne julli farata la xale mënu ko. ok mais bu dee la mën na ko. d'accord parce que lii di farata du naafila. naafila xam nga julli la boo si juumee amul réparé. Ah. julli naa fi la soxlaawul euh, ñaari sujjóot moo xam qabla la wala baada la contrairement ak julli bi nga xam ne moo di julli farata mais borom xam-xam yi am na ñu ne âge bi nga xamante moom moo gën a minime hmm. ngir xale mën a jiite ay mag mooy li nga xamante moom moo di fukki at ak ñaar muy douze ans muy douze ans mais am na ñu wax mooy que loolu mais bi gën a war mooy douze ans waaye ba pare du nekk julli farata hmm. bu leen di jiite julli naa fi la lay doon lu mel ni si weeru hmm. nga xamante ni dañuy julli farata ba xale bi peut-être nekk na daara ja mokkal na alquran baatam neex na dina sàmmunte ak li nga xam moo di tartil muy li nga xamante ni moom mooy règle Euh, grammatical yi nga xam ne moom la ñu jàngee alquran ak conjugaison yeeg ñoom seen apprentissage la sax pour xale bi euh, bu dee julli farata bi yëpp ci journée bi yaa ko julli bu ñu demee nag ba euh, ba ba julli gee ba def shafaak huit na jiite nekk genre training rek nga xamante ni bu bu màggee rek fa tabarakallah allah day mën a day mën a enchaîner yàlla na ko yàlla la fal ba mu jël ba mu jël turandoom si alquran ak l'islam ak ñaan leen si barko Serigne Fallou mu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu te may ma xaalis borom na am mu am <laughs> jërëjëf mu ngi noonu donc fukki at ak ñaar la ñu wax bu dee nguru imam Malik nee na mën na nekk si naafi la mais mënul nekk si farata comme nag Sénégal si nguur imam Malik la ñu tënk wala ñi si ëpp kon dañuy wéyee li nga xamante moom moo di imam Malik mooy mooy li mu wax beneen bi mooy jigéen bu fekkente ne kër goo xamante ni xëy na boroom kër gi newu fi tukki na dem na bitim réew wala dafa voyage wala liggéeyam tënk na ko julli jot bu fekkente ne ay jigéen rek ñoo fa nekk ku jigéen mën na jiite ay jigéen rek ci biir kër gi mais si digg bi lay nekk hmm. ñi si des aligné wu ak moom ah du taxaw ci kanam góor di jiite déedéet musuma koo xam digg bi lay nekk jigéen ñi aligné comme moom ngi sàppe benn sàppe rek léegi mu leen di jiite mais buy jàng alquran si suuf la koy jàng ah, buy wax allahu akbar mu wax ba nga xamante ñoom dinañ si dégg ñu mën a ànd ak moom donc parce que jigéen même buy julli farata tamit day yelu ndax dañuy wax ne almaratu kulluha awra maa adal waji wal kaffayn hmm. jigéen léppam awra ba mu des xar kanamam ak ñaari tënk loxoom hmm. donc loolu moom moo tax ñu ne baatu jigéen buy jàng alquran légal rek warul jëm kaw hmm. a a a mën a a Euh, audible nit ñi mën ko dégg mhm. ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na suñu yaay Aïcha radiyallahu anha soxnaam su baax si mhm. saxaaba yi nekk fi di ay kàngam di am ay érudit ay boroomi xam-xam mhm. mu ne leen xudu nisfa diinikum an hadihi al xumayra bu ngeen bëggee xam seen diine wala seen genn wàllu diine wala li si ëpp jàngee leen ko si as boroom kaala su xonq si wala as ku xonq si toog di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha donc si loolu la ñu sukkandiku ne jigéen mën na waaraate jigéen mën na waxtaane jàngale li nga xam moo di diine islam ndax yonente bi sallallahu la waxoon na sahaaba yi radiallahu anhum ñuy laaj suñu ay Aïcha radiallahu anha kon su demul woon noonu kon du yoon sallallahu alayhi wa ko jàngale te koo laaj nga mu wax la te bu la waxee da lay wax si kaw ngir nga mën a dégg voilà donc euh, euh, première question bi hmm. euh, kii dafay laaj ci allo oustaz ni hmm. est nga def yaramu neen di jàpp ñu bëri dañu koy def hmm. boo sangoo ba nuppi rek waaw waaw waaw xam nga tey ji par exemple ah. loolu lu lu mën a nekk la parce que boo xoolee sangu garaaw nag boo xoolee sangu farata par exemple muy sangu set comme ni ñu koy waxee nit ki bu koy def lu muy def xam nga day simeeku ah. dugg si duus bi jonjoo sangoo ak saaboog njàmpe ba pare ah. daal dee sangu sangu farata mhm. boo sangoo sangu farata am na ba nga xamante ni day ak njàpp bu la neexee bu dee da war a jigéen bu gisoon baax wala góor gu nekkoon ak soxnaam pare war sangu bëgg julli ji mhm. mën na boole si sangu farata bi njàpp bu paree rek euh, sol ay yéreem wala serbetam fomp mhm. dem julli ji donc bu fekkente ne nag da nga euh, bëgg am envie sangu sangu set te boole woo si njàpp bu la neexee boo sangoo set ba pare boo paree nga jàppe noonu boo paree nga génn ala xaal mu bëgg a wax foofu mooy tey sangu set bi nga xamante day ànd ak njàpp ki koy def du yaakaar naa ne du sol yére te bu paree may nañ ko mu fomp sol ay yéreem dem julli ji kon nit mën na jàpp sans pour autant que mu sol yére Euh, te boobaa jàppam day nekk la nga xamante ni lu baax la. Mhm. lu lislaam du nangu la maa daama deful si diggante ba luy toj njàppam bay Cheikh. voilà beneen question ba tey ci wàllu njàpp euh, te man loolu itam daf may trotter souvent la tête am na ku mhm. laajte ni. Mhm. Euh, sangu farata comme par exemple bu soobee nekkee sa yaram nga war a sangu farata. mook sangu normal bi ban moo ciy jiitu da ngay sangu normal ak saabu ak machin baal leen ma safur la tàmm wax yu waxi waxi dof rek da ngay sangu normalement doog sangu farata wala da ngay sangu farata doog sangu doog a sangu normalement. mooy nga sangu normal jël saabu ak njàmp bomb ba set wàññi sobe si bu baax ba mu deñ sa yaram ah. nga daal dee def li nga xam ne moo di sangu farata ah. parce que tey jii nii boo sangoo farata pare ah. bëgg sanguwaat ak njàmpeek saabu sa tënk bii bu laalee sa awra rek sangu ma day yàqu ba pare mun naa ko sa yaram waaw waaw bu ko laalee rek xam nga póom bi du li mooy póom xam nga póom bi bu laalee awra góor rek toj na. njàppam toj na eh, léegi nag bu fekkente ne yow euh, da nga sangu ba pare. farata ba pare bëgg jël njàmpe ak saabu bëgg a bombaat sa yaram yëpp bu ko laalee. njàpp mi day day tojaat sangu mi dootul valable. donc boo sangoo farata ba pare rawaleel sa loxo. voilà voilà léegi nag pour pour pour loolu bañ la arrivé da ngay sangu ak njàmpe ak saabu ba set wecc. Hmm. soo paree nga daal dee sangu farata nga xam ne si saabook njàmpe boobu nga raggu ba set sobe si yëpp daanaka dañ na yow boo paree da ngay sangu farata rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal hmm. ngir boo paree mën nga mën a dem julli ji bu fekkee da nga bëgg julli boo bëggee jàng alquran nga mën a jàng alquran. bàyyi d'accord keneen ki euh, moom la ñuy jeexalee ci allo oustaz moom ne euh, dafa euh, nekkoon ak soxnaam ci weeru koor. Mhm. waaye bi muy paree bay sangu. tombe mhm. na ak juste ñuy salaatu. maanaam 5h30 mhm. ci la doog dugg ci douche bi. pour sangu set. nee waaw loolu yà loolu loolu loolu yàqul koor. il était ndax bokkul si li nga xamante ni bokkul si li nga xamante ni day yàqu koor lu tax bokkul si li nga xamante ni day yàqu koor parce que koor li koy yàq yëpp Seydina Muhammad hmm. sallallahu alayhi wa nañu ko boobu bokk si lu dul bu fekkente ne da nga ko def si li nga xamante ni moom moo di bëccëgu weeru koor hmm. te jamono boobu fekk ne yow yaa ngi woor bu boobaa sa koor day daal de yàqu par contre lay liggéey chaque jour nga romb ko affaire bi daf ndeysaan parce que daal la tombé bi ñuy salaatu hmm. muy doog a pare di sangu set. dama lay jox ñaar parce dafa tegoon ndox mi ndox mi tàng. dama lay jox ñaar yéex a tàng. dama jox ñaar. te chaque jour nga gis ko. nit mën na nekk ak soxnaam wala ak borom këram. si weeru koor ci directeur yi guddi gi par exemple mu ñu ñu ñu seq ñoom ñaar xëy na ñu biddamti bu ñu biddamtee si bëccëgu weeru koor fekk ba ñuy seq ñoom ñaar si guddi gi la woon loolu yàqul sax seen koor ah yàqul koor déedéet bu ñu paree dañuy sangu ah rek continuer seen koor déedéet Fatou bu ñu bu ñu seqee si guddi gi ñoom ñaar xëy na ñu biddamti ba karmat par exemple yeewu 9 heures wala 10 heures wala midi loolu yàqul seen koor dañuy sangu farata rek bu ñu paree surtout ñaareel karmat aawo ah sax ñu la teel a tàngalal sa tàngalal sa ndox mais ñaareel moom par <laughs> ànd si bëccëgu weeru koor mm-hmm. te fekk ñoom ñaan ñëpp kenn du si am bàkkaar mm-hmm. si naka lu sew sew la mm-hmm. tey jii nii euh, Mamadou Ndiaye tukki na yaa ngi dégg waaye xale bi jabar ji <laughs> léegi waa ji tukki na léegi waa ji bi mu tukkee si euh, mu ñëw par exemple midi fekk soxna si bés boobu si la ngàntam jeex ah. mu set par exemple 9 heures waa ji tukki bi moo tax woorul yaa ngi dégg soxna si set na 9h ñu dem ba 14h 15h soxlante. xam nga waa ji woorul. ndax am na ngant tukki bi. soxna si itam bëccëg boobu wooru ko woon ndax si la setoon. ngantam si la jee boobaa ñoom ñaar bu ñu kenn wooru si te ku si nekk da nga am ngantu li lislaam nangu. ci biir koor gi ci biir koor gi. Ah ñoom ñaar bu ñu àndee duñ si am bàkkaar. mais mais ça veut pas boo woorul tout est permis boo woorulee. waaw ah, boo woorul kay lu wooru ku woorul luñ ko may rek may nañ la ko. Ah, boo woorulee. bu fekkente ne ngàntalu sharia nangu la. Hmm. ba tax na wooruloo. Hmm. lépp lu ñuy may ka nga xamante ni woorul rek. Hmm. yow boobaa dañ la koy may ndax sa ngànt. lislaam nangu na ko te tukki bokk na ci li nga xamante ni euh, day tax. Euh, nit ki bañ a woor. mais loolu aussi selon distance tukki yu métti yi la woon. waaw foofu laa jëmoon mais léegi nit ñi dañuy tukki en première classe euh, avion yi souvent dina am confort est-ce que dina jar ngay gàntal julleeg ñoom seen. tu yàlla l'embarras choix. ah. parce que dañuy wax ne jurisprudence fuqahaa yi dañuy wax ne inna allah yuridu aw yuhibbu an yu'ta azaimahu kama ruxasahu kama yuhibbu aw yuridu an yu'ta azaimahu nee nañ yàlla su la santee dara ni muy bëggee nga nekk si su la ko teggilee noonu la bëgg nga tegg kooku ndax yërëm ak yërmande bi nga xamante nii moom la la yàlla yërëm léegi nag yow yaay xool si tu voyage en première classe wala en business yow yaa xam bu fekkente ne yow wër na le bon nga woor sans problème nga woor parce que may na ma ko ah. kon dama koy jël boobaa kenn du la wax ne lii la l'islam may hmm. doo ko jël en tout cas avant salaatu bi wala après salaatu bi je reçois beaucoup de réactions tellement ça intéresse les gens mais amul problème avant salaatu moom bu ñu xësee ba ne allahu akbar bay waajo wa asalaatu xayrun min naw mi hmm. boo tegoon kopp pour lekk wala pour naan tegal bu fekkee ne da nga bëggoon jote ak sa soxna jéem ko fomm nga xaar ba dog jéem a jot. ba boo ko defee après rek dugg nga si li nga xam moom moo di journée bi te boobaa sa kor day yàqu. li répondeur orange bi naan naan ñu ngi leen di gërëm ba beneen. <laughs> fay fay dafa la siy fekk. tegal ko ko rek te bu boobaa. Euh, mën naa gis yow ñu ngi lay gërëm ba beneen. <laughs> jërëjëf yàlla saas leer na <laughs> ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla defal yàlla sunu borom sàmm ñëpp xam-xam moom euh, euh, dëgg-dëgg euh, dafa baax ñuy déglu ñu mel ni Assane ñu ñuy dimbali pour ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi donc yeneen question yi xam naa dama koy lepp rek ba ëllëg puisqu'on a plus à de temps 23 moo jot ñu àndandoo ak yéen en direct ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futur Média jusque bi peut-être dinaa la ko baaxee kii dafay laaj ndax woo woor ba pare dem consultation euh, gynécologique yàq na koor déedéet ndax euh, à l'impossible nul n'est tenu mm. gis nga mooy li ma la wax sànq tey jii nii yow nga woor Euh, dem defi li nga xam ne moo di consultation gynécologique loolu yàqul sa corps mm. parce que da dem pour faju ji mm-hmm. da dem pour xool sa wér yaram da dem pour xool te yaakaar naa ne loolu ku koy def am na fa mm-hmm. nga xamante sa wér yaram fa la fa la fa la fa la fa la fa la toll mm-hmm. il faut ñu xamante nii léeg-léeg li ko yàq nekkul la nga xamante nii lu yomb la ndax tey jii nii consultation la rek dem nga parce que boo dañ lay dem pour faju te xëy na boo retee rendez mën na jur la ko ci anam ba nga xamante nii ak ka nga fa fekk mu nekk liggéeyam mu def ko dans les règles de l'art après boo paree nga delluwaat sa kër dara nekku si yàqul sa kër d'accord góoru gynécologue bi moom amul benn problème ci liggéeyam la nekk waaw bu fekkente ne jigéen hmm. am na ñu formé ko mu nekk gynécologue moo gën. bu dee góor mais bu fekkente ne góor gi moo fi ne te moom moo fi sas keneen mën la ko defal. boobaa bàyyi ko mu dem mu def ko mais du yàq kooru ku góor ki. du yàq kooru ku góor ki bu fekkente ne ku góor ki amul la nga xamante ni la si yëg. si diggante bi ba am mm. lu génn si moom. l'intention. waaw ah, l'intention dara génnul si moom. Mm. amu si bànneex yëgu si dara. Mm-hmm. liggéeyam la def rek dans les règles de l'art jàmm am ndaw si delluwaat boobaa dara nekku si. Mm-hmm. mais bu yëgee par contre dara ba am lu génn si moom boobaa. Mm-hmm. kooram day daal day yàqu. te yaakaar naa ils sont assez professionnels pour dem seen liggéey si anam bi nga xamante ndax loolu moom moo tax ñu teg leen fi euh, saytu ni seen wér-gu-yaram pour ñu mën a delluwaat mën a woor ndax koo saytu wér-gu-yaramam ba jox ko ndigal mu mën a woor mm-hmm. yow mi nga xamante ni yow yaa ko defal loolu lu mu am si yiw si koor mm-hmm. yow da koy da nga siy am sallallahu alayhi moo waxoon ne ak dallu alal xayri mm-hmm. ka faa'ilihi kii di dimbali nit ki ba jaamu yàlla mën a yéwén mën a baax mën a nekk la nga xamante ni lu yiw la lu kooku am si lu baax rek moom dañ ko siy dimbali voilà et jot naa commentaire euh, Ngone Ndiaye Géwél